Ngéwël maa ngi lay fay Assane. d'accord tey waaw li ñu doon samay tànk tey eh, démb dañ maa woo ñu ma tey dañuy def daal di ko doon joxe mais mujj yi ma woo ba tey ñu woo ma moo war na jël sama date tey waaw. doo jëlaguma date léegi comme ñoom dañ doon rey ñu comme daal sa suñu di bi ci la nekkoon di di wax ci service de l'ordre yeeg affaire yi moo tax ba nag di ñoo ngi taxaw di xaar mais naan ci am naa benn lutte boo xam ne sooba yàlla après koor gi lay doon maa ngi teg benn 4-4 bu baax macha allah ak benn scooter bu am solo fii laa ko bëgg def ci arène nationale bi. waaw ndax xam nga lamb moom comme ni ma koy waxee rek saa su ne da ngaa war dolli ci rek di di yokk ñeex comme ni ko gars yi di waxee ba tax na ren daal euh, dama dugg ci lekk simple mais bi ma ji dugg nag dama ci dugg ak beneen beneen moo teg teguma xaalis oto laa teg ak xaalis ak euh, scooter waaw ni ciy woo Sénégal gépp terewul tam aussi am na benn date boo xam ni li avec frappe la ñoo ngi koy préparé bu soobee yàlla euh, ñoo ngi tëggan euh, armée bu ngéwal ak bébé daaru moom lañ tëgg fii lañ ko bëgg def ci kàttanu yàlla am na yeneen combat yoo xam ne ñoo ngi koy préparé fu ci mel ni Bambey ñoo ngi ko ñoo ngi ko ci mel ni Louga ñoo ko jëm fu ci mel ni Thiès ñoo ko jëm am na ay journée yu bari daal macha allah yoo xam ni dëgmal nañ ko te waa Ngéwél production ñoo ngi ciy ñoo ngi ciy bay seen waar. non xam nga boo gisee daaw daaw boo gisee dem naa cees parce que xam nga daaw doon ussin ci région yi mais bi ma tëggee Thiès vraiment ndëccu moo ko nekkul lu ma rëcc parce que journée bu doy boo xam ne macha allah bi ma ko tëggee na ko yaakaare woon sax dafa dafa jé dafa na mel da ko raw ba tax na ren nag dañoo bëgg delloo bu ca mboy mboy ba parce que xam nga tamit làmb dafa nekk loo xam ne daal saa su ne war nga mën di def loo xam ni eh, amateur yi nañ gis seen bopp ca xam comme ñu nekkum ay gan léegi ci làmb daanaka lu ma septembre loo foo foo ko nekk ci lable bi war nga war nga ci mën a xam-xam daal bi sa xel neexee ba tax na daal vraiment làmb ji bëgg nañ di def loo xam ne buñ ko defee daal Sénégal gépp dañ kontaan te Sénégal dañoo bëgg làmb comme ni ma koy waxee dañoo bëgg làmb kon booy def da nga war ba mu ñor nga soog a yàq ko defee ñi koy jëfandikoo mën a mën a mën a mën a am lu daal waaw vraiment ren moom dañ ko dañ géwél gi affaire bi xat na nag parce que li ñu woon lépp xam naa ne duñ ko man mais dañuy def li nga xam ne rek moom moo sëf ndax gis nga tey parce que làmb moom dalay jaral rek tey gis nga ko nii su ma fekk nii tenue laa sol damaa nekk sama sama liggéey daa ci lan ma woowee ni ma ñëwal nga jël si date ma bàyyi sama liggéey ñëw làmb loolu làmb moom moo ko man parce que da ngay dafa nekk loo xam ni loo gëm la da nit moom boo gëmee benn affaire dañ ci dem ba jeex waaw sànq loolu damay wax ni fotu euh, fotu fotu fotu fotu fotu CNC la quoi ndax man damaa régularisé woon ba pare kon yaakaar naa lépp mi ngi ci machine yi jàpp naa ne ñi nga xam ne régularisé nañ ba pare ñoom lañ war a woo ba pare démb bi ñuy wootee waa CNC ñëwoon ndax sama tey ji promoteur boo gis numéro téléphone am mi ci machine bi yaa ngi dégg ñoom ñoo war a xool euh, ñu jiitu jox leen date mais def na erreur parce que erreur bu mënut a passé non non xam nga xam nga tey euh, du ma waxee noonu ndax boo waxee noonu day mën na Sénégal te wax daa jafe comprendre nga wax dafa jafe yaa ma dégg mais ni ko doxalee daal mën nañ ko doxalee neneen noo xam ne mën nañ la gën rafet ndax ñun ay nekkatuñu gan ci làmb te tey jii man dama ci mbapatu nome laa njëkke woon ñëw dagg sama licence mbapatu nome booba léegi mat na sept ans boo ba léegi chaque année damay renouveler sama samay licence te dama renouveler sama licence li may wax ak yow nii renouveler naa sama licence lu ma deux semaines ci tey comprendre nga kon jàpp naa ni bu ñuy joxe dat yi man sama classe bi war nañ leen a jiital nag parce que man bi nee la lan demee sama combat bu nee nee suba la lan ko arrêté le 15 mars kon yaakaar naa ñoom waa CNG seen xel war na dem ci loolu ba tax na bu ñuy joxe dat yi seen xel war a mën a dem ci man du ma leen jàppee nag ni danoo danoo danoo danoo farak yooyu mais damay leen di jàppe ni leen ni ñoom ni nga ko doxalee du noonu parce que waxtaan moom bu na neex waxtaan moom dëgg rek dajee baax bu ñuy joxe date bala ñoo man a génn di joxe benn date man war nan ma woo parce que sama numéro nga fi parce que Baba Diaw bu duggee bu génnee man maa war a dugg keneen soog a dugg loolu mooy dëgg mais nag yàlla baax na parce que làmb ji moom ku nekk ak sa wërsëg mu njëkk am date ak mu jam date moo ci yem yàlla noppi na bu yàgg waaw Assane Assane maa ngi lay gërëm nag jaajëf